وكسرا خيرات عسى البلد ورزقه والشفيع عنك كديم ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا عكيم ونجنا من سر هذا السمن وسر خيره وكل فتن والتقنا سر النزار والنور وسر إبليس وكل سجود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 kàddu yi nga xam ni moo jóge ci sëriñ bi sunu kilifa yu baax yi fi nekk danañ ko jottali ndax ñoo fi nekkal sëñ Abo sëñ Abo nekkal fi Seex Muntaxa kàddu gi di genn kon ci ñoom lay bàyyi ko muy sëriñ Aliyu gisuma ko waaye ñëw na léegi fekk ne julli gi ak sëriñ Abib bi nga xam ne moom la fi sëriñ bi yabal mu ànd ak moom te ñoom naka jekk ñu di fi di fi teewal sëriñ bi sëriñ yu Mbàkke mu sëriñ Fàllilu kon ñu ànd ak seen doom yu baax ji ñu ànd ak Cheikh Abdoul Ahad ak njabootu Serigne Touba gii dëkk ak ñun ci koñ bi tey ñu baax ñoo xam ne ñii lépp lu ñu nekk ci jàkka jeeg daara ji lépp ñu nekk ci ak ñun ji suñ bokk yu baax ci suñuy doom yu bàyyi di suñ lépp bu baax Serigne Abdoul Akram waa Serigne Afé yi fi nekk yëpp ak njabootu Serigne Touba gi fi nekk yëpp ak seex Serigne Touba yi fi ne sëriñ bi ñu dee seeral ni ñu ngi sant mboolem ñu bokk liggéey fii ci wet gi ñu nekk daara sëñ Fallu ji ñu nekk ñu ngi ni jàppale bu baax la ko tàmbalee ci ilimaan ni ajjuma ji muy sëñ baara bosa mu fi sëriñ bi yabaloon muy fi jiite ajjuma jaar ci ilimaan yi nga xam ñoo yor jàkka ji jaar ci mag ñi nga xam ñooy taxawu jàkka ji jaar ci alaaj Njaay Cheikh ni mi nga xam ne moo jiite ñi nga xam ne ñoo fi waxtaan waxtaan yi di fi yee nit ñi ci koor geeg lépp noo ngi lay jotli suñu cant ci ñoom nga jottali nu ko sëriñ bi jàmbaar lañ dool ci liggéey bi lu sëñ bu digle buñ ko jaaralee ci ñoom na ko sëñ bu digle lañ ko defee gis nga nii ñu ko defee tey lépp ngir topp ndigal rek ah ñoo ngi jéglu nag di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko ci barkeb sëriñ Touba barkeb Cheikh Amadou Fadil mi nga xam ne moom barab bi suñu borom nangu la suñu koor nangu la suñuy jaamu yàlla nangu la suñuy naafila nangu lu njàng alxaan mi ci jàng ak xasayit ñi jàng lépp lépp nag bu noppee moo koor geeg lépp nu wul bi ko def ko addee Sëriñ Tuubaa moom mi nga xam ni lépp lu ko waay jox dootu yàqu ba mukk ndax suñu borom nangu na léppam kon jox nañ ko addiye ah, tey nag ba tey itam ñu leen fàttali lu jëm ci bis bi muy muuri koor yi ndax bokk na ci li koy àggale ñu farlu ci bu baax a baax a baax jox ko ñu ko war a jox génne ko nañ ko war a génnee joxe ko nañ ko war a joxe la ca des nag sëriñ Abibu bu ngi ci làmmiñu sëriñ Abibu ak sëriñ Aliyu la lañuy waxtaan tey nag moo di nangu kilifteef ak nangoo jëfe ndigal ndax loolu de ñaar yoo xam ni nun taalibe yi taalibe sëriñ Tuubaa yi buñ ci saxee te jàpp ci lépp luñ yóotu dañ ko jàpp te duñ sori sëñ bi benn yoon sëriñ Falilu mas naa wax fii ci ak julli korite wax ni bàyyi leen kenn ku nekk ni balaw fi sab koñ ni mënum lëm nun ñëpp sëriñ Tuubaa nu fi indi te noo waxal suñu bopp li nu fi indi muy fekk sëriñ Tuubaa daal di wax ni tam wasiila ta ñàkk yaayu la si na amono ittaqullaha wabtaxoo ilayhi wasiila daal ni wasi al wasilatul usma mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko toppi woon di ko topp ni ko topp ba ba ba ba moo ko sañ wax mu ne ba ci suñu gitaay bii wa taabihina wa man tabihum wa man tabihum ba ci ba bii la wax suñ jotaay bii nag bu ko waxee tey sëñ mun fi ne moo fi toogal jotaay boobu boobee kon wasiila mënta ñàkk ah, dimbalante gi itam gis ngeen ni ni ko ni ko sëriñ bi ni ko sëriñ bi waxee jëfe ndigal gi itam am murit moom féeg mu ngi jëfe ndigal daraam du daraam damay tàmbali suñu bi rek ci ñaar yooyu waaye la ca a wax lépp dana ko leeral ak li war ci dëkk bi war na ci taalibe bi war na ci lépp noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaar ñu teewe ko nag ni déwén te kenn bañ a manqué ci barke borom Touba lii fi nekk nga xam ne moo waral moo waral soppi ko jamono jëpp yàlla na ko suñu borom jëlee ci barke borom Tuubaa mi nga xam ni moo ne woon yaa maalikal mulki yaa man jàll xan xawat ni irham jamihal wala yaa haadin radaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, may jégalu rek baax tànk kàddu yi ndax sëñ bi bu may bëggee ci ñëw ci léegi wax na ma ne naa soññee ci liggéey bi nga xamee ne seq naa ko ak yéen muy tuwaa ci kanam euh, ndër bu ci yoon wax benn baat sax ndax ñëpp di gisandoo nañ ko te moom moo ko xëy na nattu ma yàlla tey rek ñu ne maa ko jiite sëñ bi dem naa ci soññee soññ ci bokk taalib yi ndax lépp seen jëf la dañu nekk kanam la waaye jëf ji lépp lu ngeen gis seen jëf la euh, kon may fàttali may ma sant man sant ci bopp ci turu Tuubaa ci kanam nga xam ne bokk naa ko yéen di ko liggéey sëñ Tuubaa te mooy jëf joo xamee ne tàmbali ab tàmbali am na waaye ñu ñaan yàlla ma am ak mucc ndax ñëpp gis nañ fi ñu jëm euh, laaj nañ lu man ñu ko def fu xam loolu ëmb ëmb ko bind kon li may sañu sama bopp di gën soññaat da nga xam ne ñun kenn ñu yërëm kenn du yërëm ndax ay murid bi ñu taxee fii ne def mi jumaa ci ñaari milliard ñaar fukki milliard naal ab jàngukaay boo xam ne fanweeri milliard juróom-ñaar kooku ku ne dana dimbali dootul dimbale kon bu ñu seet bu set seetlu bu ñu saxaloon dimbal ci kenn ku subhanahu wa taala sëñ Tuubaa moom daa tàlloon yàlla loxoom boo xam ne dootul tàll kenn loxoom ku di subhanahu wa koy ñu itam nañ def noonu topp ci ginnaawam rek te yàlla moom boo jëlee sa lépp jox ko mu yore sa lépp ndax doomu aadama la ko bis boo demee ba mënatu ki dana dana bis taxaw la ne la ah yow kat maa daan dimbale waaye defal ni ma def nii kon waaye nit ki boo mënee sa bopp kenn dootu kenn dootu mën a seen condition yi kon may gën soñ sama bopp dina gën soñ rek nga gën ngeen gën a góorgóorlu ñun ñëpp ñu gën a góorgóorluwaat jàppaat ci te liggéey Sëriñ Tuubaa dëkk bi dëkk bi Sëriñ Tuubaa bëggoon ndax bëgg Sëriñ Tuubaa dafa ne Tuubaa ci boppam bi ko yàlla bindee kenn mosu jaamu xelam kenn mosu def lu ko yàlla góor yàlla yëpp ku ne ñaanal nga subhaanahu wa taala ku ne yàlla may na la nga mën koo am waaye dëkk bi mu tànn dëkk bi dëkk bi na daa tànn Sëriñ Tuubaa ni man Sëriñ Tuubaa maa la bëgg Tuubaa Tuubaa ci boobu mu njëkk bëgg Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa doo ko bëgg kon ñun ñuy dëkkee Tuubaa tawfeex la ci ñun ndax du dëkk Tuubaa kon ñu dëkk Tuubaa euh, nekk ak moom damay wax ne jaww jaww yu Sëriñ Tuubaa nekk xañ na lii ñu def yëpp ngi masqué yi ñu def ak yëpp dëgg la ay mm, docteur yee ko digale xam xew ci àdduna rek la te doomu aadama ku nekk ci àdduna il que def lu àdduna def ndax sëriñ bi waxoon na ne bu ngeen demee ba jëm jamono àdduna waaye boobaa fu àdduna wóor bi fi jëm fu du ak ma yàlla nga fi toog loolu mooy ndigal li kon moo tax suñu mun taxaa joxe ndigal ne nañu nañu takk ay masque nañu def nangam nañu waaye ñun xam nañu li ñuy li ñuy jariñ Sëriñ Tuubaa la li ñuy lor moo ñu ko mën a fayal kenn mënuñu ko fayal kenn mënu ko du toor kenn ndax gëm nañu ne jaww Sëriñ Tuubaa ji lenn lu fi lor dafa am ci àdduna lam yanhu nax wi lam yanhu nax wi li mu waxoon ne lam yanhu darun lam yanhu durun wala adnaasu wala si yanhu jihaati xanaasu waxoon na ne tim ne salimta ahli wa maali wal iyaala mahan minal wabaay wa fi daari maa xaabu loolu kon nañu gëm loolu te wóolu ko te def la ko suñu xel te xam ne nañ def ndigal rek ngir sëñ bi digal nañu ko waaye li ñuy musal ci musiba rek ni ko ci ni ko ci yi ñu def yëpp tëg waaye ab réew boo ci nekkee dañ foo dem fekk ñu ko koolaa bokkuñu ak nité waaye ñëpp feddi ko lépp loo xam ne suñu diine nangu ko no loolu dañ taxaw xar suñu tànk tuye bañ ci bañ ci ànd moom ndax sëñ bi kat nda masaa moom ni suñu saa ndax mas naa wax ne Moussa wax moo ne ko da ngay mu daaranti tubaab yi mu ne ko mu daaranti mooy lan ndax tubaab yi mu ne ko waaw ngay jëfandikoo ñoom rek mu ne ko ndax tubaab yi bu ñu nee bu yow bu ñu waxee nga def leen ñoo mu ne ko ndax boo leen julli kaa leen julli ngeen day ànd yow julli mun a déedéet mu ne ko ndax boo leen wax leen ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasulullah danañ ko wax mun a déedéet mu ne ko yéen def leen mu daara mu daawara ngeen def mu daawara mu daara daa bukkut mu daarante mooy da ngay kii mu def ngeen ngeen ngeen di pàccoo waaye mu daa mu daawara mu da ngay wërante rek ndax tubaab yi li ñu sant duñ ko li nga xamante moom lañ moom moom moom la ñu digal ñun suñu digalee ñun def waaye ñoom bu ñu digal ñu lànk kon dañu ëpp fu kon waaye dañu gëm ne ñun dañu war a gëm ni lislaam moom lu lu mën a am rek li ci àdduna ci loxo Sëriñ nekk moom ku neex ku naq loolu yàlla dogal kon nañ ko gëm te wóolu ko te jàppale ko sëriñ bi ñu jàppale ko ci liggéey bi boobu fu waaye nekk na jàppale yow la Sëriñ Tuubaa ci àdduna lu baax yow la waaye lu yàqu yow la lislaam amati ndam ñu ñaan si Muntaxa yàlla yàggal ko fi te yokk kattan te yokk ndimbal ak ñi ko ànd ñu àttal ñëpp ak njabal sëriñ bi yëpp ndax euh, le 20 mars àdduna sépp ci bopp adduna alamu alamu islaam yi wala alamu bépp alalam bi kull kenn julli fi àjjuma Tuubaa rek fi julli àjjuma ba atta kaaba kaabatullahi mustafa julli àjjuma rawdu sari yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli àjjuma Tuubaa kef julli àjjuma kon bisub karaw bu bu fekkoon Tuubaa julli àjjuma lislaam dana daan ci àdduna ndax seetaan yi taal na jum yëpp yëpp tàkk kon jërëjëf sëriñ Tuubaa jërëjëf sëriñ Tuubaa jërëjëf sëriñ Tuubaa dañu xam ne dara du yàqu nañ rafet njort te góorgóor lu baax rek te rafet la góor lu baax tey sant yàlla baax tey góorgóorlu ci tuub ak sàkk sarax ak baalante àq te jéggalante te jéggalante te suturalante yàlla tax te fas yéene nekk benn jàppoo mel ne ay birig yoo xam ne dañoo yooyu taxaloo kenn bu ñu mën a tàggale bu ñu ko defee li bëgg dañu ko am ay jullit bu nekkee dañuy suñu dee dimbalante rek yàlla yàlla fekkee ci ndimbal googee ndax euh, li nga xam ne maanaam mbooloo jër mën yàlla ci fa fa nekk kon nañu nañu tënk ci ndigal yi te bàyyi tere yi euh, loo ma digal ma def ko loo ma tere bàyyi ko nag moom ku xas wax nga ma àllaaxira àgguñ fa kon àdduna si rek bu ñu la diggalee defoo kon nag mel ne àllaaxira la wax wér ci yow kon ab murit bu dikkee dama damaa sama bopp àdduna kenn forcé wu ko woon ndax ku jéblu si kenn ku kenn niwul kaa jéblu si yaa jikko sa bopp xool ba mu doy la nga bàyyi ñëpp ànd kookee sëriñ na wax te àllaaxira dama góof boo waxee weddi nga waxoon kon daanaka na kon yaa ko jël continuer kon murit li ñu ko xamee mooy topp ni nga bàyyi tere Euh, bari na yu bari bari yoo xam ne ay ay mbir la yoo xam ne dugg ci nit ñi te seytaan rek moo bëgg a yàq moo bëgg a yàq pas-pas nit ñi ak di ko jax jaxe loolu seytaan dana koon ci te dara du ci dëkk kon dañuy gën a góorgóorlu baax a baax a baax ci tënku si ndigal kilifa di ñaan yàlla bàyyi leen fi ñoom yàgg-yàgg yàlla musal leen te te te dimbali ñu itam ñi xam ñooy ñooy toppkat yi yàlla may ñu ñu ñu ñu ñu ñu nangu topp li ñu digal te te yàlla def ñu tawféex te yàlla musal ñu ci topp bakkan ndax bakkan ak di ko naseedu googu nga xam ne mooy mooy baat boobu nga xam ne ci la ñett yi tëggoo te képp koo xam ne yàlla musal na ci mën ngaa am li nga bëgg fii a fañ jëm mooy nafsu mm, seytaane hawa dunya yooyu yàlla ñu ci yàlla musal euh, notañu ko te yàlla suñu taalibe dara bañ ci yàqu kon ma ma ma gën a soññewaat sama bopp rek ci li ma sëñ bi waxoon naa naa ci insisté sañ lañ ci mooy mooy liggéey bi euh, waxoon naa ko fii ay at yéegi ba waxat léegi la ma fàttali boo rek ma juróom-ñaar mu ne waxoon naa ne fii mbedd mu nekk rek bu bu fekkoon ne dëkk ci ba euh, bu sëkkee bunt këram kenn ko sëkk bunt ba bunt kër yi day ndax kon ko dëkk bi du taati ndax dëkk bi ci fi yëpp waaye kenn nañ bàyyi xel ne kenn ñu ci dimbale ñoo ci war dimbale suñu bopp ñun kon ñaar téeméer yi nga daan joxe bu bu leen xeeb lu ngeen gis ñu def ko ñaar téeméer yi ko def bëkki démb rek sëñ Muntaxa jox nañu digal ñi ñooñu quarantaine nga xam ne ñoo tëj ci kër yi mënuñoo génn juróom fukki kër la woon juróom fukki kër yooyu dem nañ ñeent fukki kër ak benn yi ñëpp tuwaal nekk juróom-ñeenti kër nekk Mbàkke ba ñu yabalee ne nañ dem liggéey ci Sëñ Tuubaa foofee kër gu ne jox na dund boo xam ne euh, boo ko lekk sax du jeex waaye ñoo dañaa dañaa xëy boo fekkoon da nga da ngay dépassé ab juróomi téeméer junni la ñu jox ngir Sëñ Tuubaa moom dootul manqué te loolu seen jëf ji rek moo moo tax ma ko li tax ma koy leeral nag damaa xam ne mbir bu fekkee dañ laa cay jiital bu bu ñu am kumpa ndax kumpa daa telu njey abi Mbàkke def naa nga abi Mbàkke déedéet li ngeen ko def benn dërëm laalu ko ci dama ko jaayandi Sëriñ Tuubaa damaa waxoon ne fii benn dërëm bu ko jëfandikoo mu yëpp dañu la àjjana sawara loolu la jaayandi kon na ngeen bàyyi xel ne lii joxulee ma ko moom ma ko ku tax may jox ku tax sama jëmmi tax nga jox téye siif na Sëriñ Tuubaa tax ngeen jëf ko jël na dëggal Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa dañ ko liggéey de waaye ñoo ko jariñoo ndax Sëriñ Tuubaa du gën ci mbedd yi du du du du taataay yi du taal lamp yi lamp yi gis ngeen li ci amakas néew mi nii bu yeesoo xat-xat yi bu soobee yàlla lépp dana leer kenn ku ne da nga gis tuwaay sa tuwaay ci kanam sa bopp insha allah ndax tuwaay ci kanam jëfi sëriñ Tuubaa la mu di jàkku moom kenn ku ne jàppal yaa ko jiite woo nañ borom xam-xam yi woo nañ borom alal yi woo borom doole yi woo borom xel yi rafet yi ñeenti nit ñi bu ñu ko amee doon sëkk yambar na mooy toog fee naan ñii dañuy def nang dañuy def nang dañuy dóor dañuy def nang bokk ci gaa yi yow rek ah. waaye bu ñàkk fu la naan gaa yaa ngi loo ci def Tuuba jumaa jii bañ ko tabax am ñoo xam fekkuñ ko waaye kon bu ñu woote ci liggéey bi kaay bokk ci ndax ëllëg si biir ndax jumaa ji murid bi ne taal lamp ya te wóor na si ñaata yow dugg ci loo loo taal lamp ya yóbbu ndox ma ci biir kon loolu naa leen ko leer tey jii sëñ bi boo ko waxtoon du ko du wax ndax barab bi loolu indi wuñu fii ndigal mooy fi indi rek waaye ginnaaw damaa jox ndigal ne ma naa ko si jot li rekk euh, naa ci naa ci naa ci profité jot di ko bokk taalibe yi leeral leen ko ni mu demee xam ne yëf yi nii demee taxaw ni ngaa ci daara alxuraan yi mii nii moom mii ci boppam lépp lu ay ci daara alxuraan moom si mu tekki loxoom fas yéene lépp lu ñuy liggéey ci moom te dañ ko tekki loxoom daara alxuraan yi daaw defe naa fa ne daara ñett li ñoo xam ne moo leen ci defar ren jii juróom benn fukki daara ak benn lépp lu ñu teg loxoom fas yéene lépp lu kenn kenn ko la sëñ bi liggéeyloo ci sa loxoom njàngale Sëriñ Tuubaa yàlla kese nga xam ne fay wookee ñaar dërëm bu dikkee ñu def ko loolu lañuy leer ñëpp li nga am waaye koo xam ne danga danga dangay fay nag kooku biti nga yor rek jox loolu waaye koo xam ne nga ñëw ngir Sëriñ liggéey di liggéey njàngale sëñ bi ñëw ñëw kon loolu laa la bëggoon leer rek maa ngi jégul ñëpp nag te suñu àll yi maa ngi ko jéggul ndax kaddu gi kàddoom la mooy sama kilifa suñu maam moo yilif ko ndax yëf yi noonu lay doxee rek kon maa ngi sant sama bokk fi teew yëpp wàggat suñu ñëpp lakkal nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy yëpp maanaam suñu bokk yi ñu bokk suñu tuwaa yëpp daal ñu bokk askan wi ndax askan wi benn la te te a góorgóorlu te gën a santaat suñu tuwaa te te te sant lu fi ñoom la lu fi baax rek ci dëkk bi ñoom la bu ñu dee ñoom la bu ñu dee bu ñu dee gasi teen ñoom la bu ñu dee lu ñu mën def rek murid yi la kon murid yàlla na yàlla fayal ñu ngi leen sant sëriñ tuwaa nag sëñ Tuubaa ñu ngi lay sant ñu ngi ñu ngi sant murid yi sa kaddu di di sant kàddu murid yi te mbas mii na jóge ci réew mi na jóge ci àdduna sépp ñu ngi sant waa diaspora yi nga xam nekk bitim réew ay taalibe fi nekk seen àdduna seen yaakaar lépp yeesu sëñ Tuubaa kon ñu ñaan ñu fa faatu ko ñu faatu ko si néew yàlla na yàlla yàlla bu yokkooti yàlla na yàlla jégal ñu ko di ñoom fa dalagul yàlla bu mu leen dal ñu nekk ci réew mi tim mi ngi noonu ndax ku ne xam na ne baatin laxu na ci laxu na ci ndax ku dégg ku dégg li xew ci àdduna si bis ñu ne nangam junni ne tëddee nangam téeméer ne tëddee te Sénégal lépp waxaguñ ko matugu matugu ñeen ko moom moo buti moo buti moo buti yem buti baatin bu dee feeñ rek buti bu dee feeñ rek borom lay borom faatu kon ñu ne nañ jàng alxuraan xam nañ ne alxuraan ñaan mooy mooy mooy nganaay jurit fekk ñu ko def yàlla ñu dimbale biñ demee ba jaaxal ci mu ne nañ jël ci yàlla dégg dégg maa information may déglu euh, ki nga xam ne moo jiite Amérique mi naan nañ jël jàkk yi di roy waa Sénégal démb rek mi ngi ko wax naan ne waa Sénégal ci ñi nga ñi ngeen ñi ngeen tëralee jàkk yi ak yu mel noonu ak delluwaat ci yàlla ñaan yàlla kon xam ne yàlla rek mooy solution waaw yàlla rek solution kenn mënut a am mënut a fi mbas bi ci àdduna ku du ñaan yàlla yàlla nag ku toog bañ koo ñaan damay damay damay fetteelu lànk bañ ko ñaan dana teg loo xam ne ëllëg si bi da xam ne sa yónni ci waaye bu ñu demee ba jaaxle ba kenn xam fu ñu jëm bu ñu dellu si moom mu mu nag doon ko bi sey mi si mel isa asaabu musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon loolu rek laay fàtte sa bopp dem fàttali tey ñaan suñu borom taala suñ bi ñu tàllal suñu borom ñëpp nga ñaanañu ci wàkk Cheikh Modou Fadal ak barab bi ñu toog ak waxtu yu ñu toogee nga xam ne waxtu yi dañuy jógee ci ramadan dugg ci ramadan li ñu firi mooy luy rakk bakkaar kon yàlla na suñu bakkaar yëpp yàlla na yàlla faas te yàlla bu ñu tegati dara te te te te yu bëree bëri rek te nga ñaan rek mbas mi génn ci àdduna sépp te bañ fee ñëwati loolu nga wax ne nañ jël suñu jaamu yàlla yëpp ak suñu koor yeeg julli yëpp jox ko suñu toog addiya loolu ci boppam boo ko waxee ku ku koo xam ne du du du du déggu tasawuf wala koo xam ne du du du saadeex du du ma nangu loolu waaye ñu nangu nañ ko ndax sëñ bi ba waxee yaa rabbi ij'alil muridiina ma'an fii husni karaasiihim wa sam'ihim ma'an boo nappee malik jamii'ahum nufuusuhum bi say bi laa say yadur wala ma saa yaqbala ma saa yaqbala mooy nangu sama jëf rek bu benn loo xam naa tabal aji ëllëg te lu sëñ Tuubaa amut ñun amuñ ko ñun lu ñu sëñ Tuubaa amut soxla wuñ ko te ëllëg yàlla daal lu ñu atte nañ ko atte sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa atte ko ci ñun ñu jël suñu lépp jox ko sëñ bi ndax moo jot ci yàlla ñun jotuñu ci wa daarukat daarukat gëm na lu waaye mën a jur sa waaye lu mu baax baax sa maam lu mu baax baax te amoo gëm ki amuñu jàng ci moom nañ bàyyi xel li ñu indi sëñ Tuubaa ñëpp bàyyi bàyyi fi mooy pas-pas sëñ li fi indi nit ñi bàyyi ko fi mooy pas-pas li bokkuñu pas-pas ku la mën a jur te amu sëñ bi hmm? ci boppam bokk ñu gën a fort ci yonent yi sallallahu alayhi euh, bokk waaye daa bokkut waaye pas-pas kon li ñu boole sëñ Tuubaa mooy pas-pas mag ñi nga xam ne ñoo toppoon sëñ bi seen way juree bu dee bu dee war yor jamono képp mën nañ ko def bu dee xam-xam am nañ ko bu dee euh, euh, daraja am nañ ko bu dee wilaayatu am nañ ko waaye dañoo xam ne cawar yàlla moom mooy wàcc Sëriñ Tuubaa ñun ñëpp ñoo bàkk bàyyi ko ay bokk ñu ñu ko nangul parce que ñu bokk maanaam ñëpp ñëw hmm? ñi ñëpp bàyyi seen lépp ñoo jox sëriñ bi doomi soxna yëpp tëj seen kàggu ya wàcc yon seen yon seen téere yi takk ko jox Sëriñ Tuubaa addiye Sëriñ Tuubaa nag kenn ko ne la nga baax le boo ko indee mu defal loo gën ci yow koo amutoon dara boo dikkee mu defal la gën mu am dara daana wax ne bu ceddo yi mu musaa ci ñëw jébbalu si fii ak doomi soxna yi day mel ne ceddo yi ñoo jëkk ñoo jëkk àgg ndax ceddo moom daa baax dara moo tax ko amul dara lu baax moom bu ñu nii dañ lépp day baax am lu bon moom si miin la benn sarik laa ilaha garab goo xam ne daa am lëm ak goo amut lëm garab goo amut lëm mooy goo xam ne kii daa xaala laahu xaala rasul doo ko wóolu bàyyi sëñ bi nag saw bi day cokkati ndànk ndànk ba garab gu jub rek kon ñu ngi sant yàlla baax di leen sant di gërëm wax ji la lu jub na nga xam ne lu baax la jubloon rek waaye lu ci dëngati na nga xam ne maa matut rek euh, te bu baax baree njuumte am ci waaye nañ gën a tënku ci rek te bàyyi tere yi lii sëñ bi ko def te yaakaar naa moom ne ne li ñuy musal moom ci sëñ bi la jóge waaye du càggee na ci li li li li ñuy wax rek moom ab réew la boo ci nekkee moom il faut nga nga jéem dox dox waa réew ma rek ngeen maslaa àdduna mënut a ñàkk ndax yàlla ko woote waa kon maa ngi lu ñëpp di sant ñëpp te ñaan subhanahu wa taala yàlla bu doon suñu muy daje yàlla fi tey aju bare bari te yàlla nangoo ñu mm, jëf ji te mën ci gis suñu bopp nag euh, ndax bare na nit ki jëf lu bare bare bari euh, xëy gestu benn genn rek mu yàq loola yàlla ñu yàlla musal kon nañ jàpp nañ def lépp bu ñëw sëñ bi sëñ bi yow moom yàlla daan nga jëfam kon ginnaaw nangu na jëf bu ñëwee suñu lépp doo ci bi jëf ji mooy nangu nangu nañ suñu jëf kon loolu tax suñu maam moo waxee loolu fu waaye commentaire nag na commentaire nag xam ne kat euh, murid la waaye waaye li mu waxee tim dakoo koo teg fu wér wér ndax su suñ tuwaar yàlla nangu na jëf moom ñëpp xam ne nangu na jëfam te ñun loolu si firnde ji li mu waxoon li mu ñaanal subhaanahu wa képp koo xam ne dattikoo ci moom bu bu dootoo ci xadis yi mu ci àdduna lam yanhu naxwiya saqaawatun wa man yaxruju min nasli irin xidaa isaman loolu ku ñu ko wax ci woon jëf ji ko foofu rek dañu dugg ci ndax jëfi sëñ bi rek ci lañ ci lañu àtte kon yàlla yàlla defal ak topp sëñ baa ngi leen gërëm di leen ñaanal te yàlla nga tee bari yàlla fi suñu kilifa yi euh, bàyyi fi ñun dong yi bañ jëkku ndigal ba ki dem rek ci àjjuma ji maa ngi dem ba dem maa ngi ci àjjuma ji ba siyaar laa ko ne daal mbas mi na génn réew mi na génn àdduna sépp irham jeemi waraa nga waxoon mbas mi ci waraa yi la bokk na abal ñëpp dem te murid nañ jëkku ndigal murid moom bu jëkku ndigal la ajum moom mm. waaw yàlla ñu jëkku ndigal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa